rajim bisimilahi rahmaani rahim euh, sama mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte man euh, directrice générale Expresso Sénégal teew fi tey ak équipe bi di dalal suñu projet Adiya Expresso Touba projet Adiya Expresso Touba du lenn lu dul nag leen yenn euh, surtout Touba yi yu mel ni bi yu mel ni université Cheikhul Khadim bi yu mel ni résidence Cheikhul Khadim daara Maam Jaara bi ñu ñu jagleel leen internet internet bu jege da boo xam ne fibre la mais am na également euh, internet boo xam ni rajo la loo lépp rek pour jàppale leen ci seen liggéey ci euh, xarale yi ci également euh, retransmettre lépp luy activité fii ci biir Touba muy julli yi muy ziyaare yi ak lépp lu ci lu ci aju dama bëgg rek euh, fàttali euh, mbokk yi ne ñun Expresso Sénégal dëgg la euh, e-, télécom société télécom lañu hmm, dañuy jagleel wooteek wuyuuk internet suñu client mais suñu mission tamit bokk na ci ci dugal suñu loxo ci ay activité sociale ak religieuse dëkk yu mel ni Touba daf ñoo ñor lool wax dëgg yàlla ndax ñun lu ñu gëm mooy boo dee société tamit di liggéey di jaay war nga war a mën a yëngu ci loo xam ne dina mën a dimbale lu mel ni ay euh, cité religieuse yu mel ni tuubaa ñu mën a am taxawaay boo xam ni àdduna bi moom la am te taxawaay boobu mënul nekk lu dul mu jaar ci mbirum internet nouvelle technologie ñun ñëpp xam nañ ne fu mu toll nii kenn mënul dund sans moom. kenn mënul développé wu sans moom donc sunu sunu sunu sunu sunu dëkk yi di Touba ak yeneen dëkk euh, diine yi nekk biir Sénégal dafa ñoo ñor lool ñu jagleel leen loo xam ni dinañ ci mën a euh, liggéey ak euh, xel mu dal ba pare mu ànd ak qualité te lépp nag dañ ko jagle gratuitement defuñu ci lépp dara dara dara loo xam ni dañ ciy séntu xaalis wala dañ ciy séntu leen dañ ko def te yàlla tax ak jëmi Sëñ Touba donc ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax bu ñu mayee ñun avril lañ fi ñëwoon gis sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke wax ko li ñu li ñu mbëbët wax ko suñu bëgg-bëgg mu nangul ñu ko ñu sant yàlla tey ñëwaat fi nii ci mois d'août bi pour wax ko ne liggéey bi egg na donc ñu ngi ciy sant bu baax équipe technique bi nekk fii ci biir Grande Mosquée Touba bi di sant suñu équipe technique tam bu Expresso Sénégal macha allah taxaw nañ ci taxaw bu am solo di sant équipe commerciale équipe stratégie ñoom ñëpp ñi ci jàpp di sant tamit chef de projet bi sëñ du di sant sëñ Assane Boub wax dëgg yàlla jàpp nañ ci jàpp joo xam ne jëmu sëñ Touba rek a tax donc sant nañu bi ñu amee tey occasion nekk ñu ñun nekk kese opérateur téléphonique am occasion ñëw express euh, Touba mën a euh, eggali suñu yéene ba mu mët ba ñu ñëwaat fi tey di ko dalal donc yéene goo xam ne jëm na ci connectivité encore une fois mooy internet biir mosquée bi biir résidence bi biir université bi daara maam jaara mais jagleen nañ leen tamit ay jumtukaay ndax dañuy soxla di jokkoo seen biir may nay leen loo xam ne dinañ mën a wootante seen biir gratuitement duñu fay loolu yëpp nag ci programme Adiya Expresso Touba la ñu ngi leen di donner rendez-vous bientôt dans d'autres cités religieuses boo xam ne dinañ incha allah rabbi répliquer la même chose pour jëmmal euh, diine jëmmal également xarala yu bees yi jëm ci internet ak lépp loo xam ne nit ki war na ko soxla pour def liggéeyam nu mu waree te jëriñ Sénégal jëriñ population Sénégal ci loolu maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, soxna ñu ngi lay nuyu ci turu muqaddamatul xidma bi nekk fii ci jumaay Tuubaa di nuyu sa délégation bi nga àndal di leen am mbégte di leen dalal ci barab bu tedd bii waaye nga may ma rek ma nuyu ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi doxaloon suñu diggante ak yéen te ànd ak yéen ñu ràññee ci doomam sëriñ Modou Kara moom sëriñ Moussa Bachir ak sëriñ Babacar Mboup te ñu am taxawaay bu rafet ci projet bii nga xam ne am ngeen ko ci liggéeyal Serigne Touba ci wàllu communication ci barab bii ginnaaw loolu nag ñuy jotli ay cant ak ay ngërëm bu baax ci liggéey bu sell bi nga xam ne ces techniciens yi nga xam ne ñoom nga yebaloon ginnaaw boo gisee ak Serigne bi ba noppi ba sëriñ bi joxe woon digal te Serigne bi bokk ci barab yi mu tànnoon jumaa ji euh, ñi ngeen fi yabaloon liggéey nañ fi liggéey bu rafet bu am solo boo xam ne euh, mel na ne nañu ko bëggee woon amee nañ ko ni kon soo ñëwee di ko ubbi dañ lay jot li seen i cant jot li seen i te xam ne seenu cant ñoom mooy sa cant yow parce que li nga gënoon a bëgg te yéene woon ko rek mooy li ngay def nekk lu am qualité lu am solo lu baax loo xam ne day jariñ yàlla dogal na nag def nañ ko ci defin wu rafet ba lañ ci doon séentu ñi ngi ko ciy am ndax fii dafa nekk barab boo xam ne ñi koy ittewoo ci àdduna bi dafa bari te yaatu te suñu sañoon fu taalibe nekk lu ñu fi lu fiy ndigal lu jóge ci barab bi wala lu ñu fiy def fam mën a nekk da ciy bokk te la ko ciy boole nag internet bokk na ci parce que léegi àdduna bi dafa mel ne benn néeg bu xat boo xam ne euh, lu ruq yi sore soree rek ña ca des lu ñuy def ña ca des war nañ caa mën a am xam-xam nag bu dee loo xam ne da caa bokk te lu cay jóge rek nga war caa ànd kon danay rafet lool bu ngeen jëfee jëf ju toll nii ci barab bu mel nii ñu sant leen ci bu baax a baax comme ni nga ko waxee nag def nañ fi benn lii ñu fibre bu bu am doole antenne bu am doole boo xam ne. Euh, télévision bi mi ngi ciy dox mën na ciy dox ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne itam ñu ngi koy jëfandikoo fii ci barab bi te mu nekkoon charge bu diis ci kaw daayira bi yàlla def ngeen ñëw jox sëriñ bi addee ci ay barab mu tànn barab bii boole ko ca barab yooyee ngeen ñëw nag jëfe ko ak yenee ju joo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko ci diggante bi nga xam ne ñu fi nekk ñu ngi fi nekk waaye yéene ju toll na ji ngi ci am nag ñu di la seereel na itam sa équipe yi fi nekkoon it yéen ju tol noonu lañ ci am taxawaay bu tol noonu lañ ci am kon Serigne Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxaw gi yow ak Serigne Modou Kara di Serigne Assane Serigne Assane damay juum toujours damay jaawale ñoom ñaar Serigne Assane ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi di sant itam sëriñ Modou Kara ci kanamu soxna si nga xam ne xëy na moom moo mooy kilifa liggéey bi te bu ñu santee njabootam rek day wane ne moom sant nañ ko ndax lu njabootam def moom moo leen ko sant waaye yéen ñi ñu doon taxawuloo itam taxaw seen taxawaay mat na sëkk rafet na lool indi nañu it mboolem loo xam ne waxoon nañ ko ni nga ko waxee ci biir liggéey bi joxe nañ fi ay téléphones yoo xam ne ñiy seq liggéey bi di kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñoom ñëpp léegi am nañu possibilité di jokkalante ci seen biir ci loo xam ne dara luñ ci gàddu amu ci lépp yéene ko gàddu loolu nekk liggéey bu am solo ndax day jàppandal liggéey bi ndax barab bi dafa nekk barab boo xam ne léeg da ngay ba sa kër tëdd ba xaaju guddi ñu jékki-jékki dara am loo xam ne ñëpp dañuy war a jëgandoo ci kilifa yi ñëwandoo fi benn barab léeg-léeg da ngay dem ba sori fu sori ñu war dara xew loo xam ne ñëpp dañuy war a dajandoo ci benn jamono su boobaa nag su amul lu leen mën a jokkale dañuy wut a jokkoo ba nu ñu mën a jokkoo rek léegi nag yàlla def na ci ndimbalul Expresso ci sa taxawaay ndax euh, nga ne lu ne nag day am lu ku ko yàlla jagleel ci sa taxawaay la yàlla dogale loolu am ba ñu yi nga joxoon sëriñ bi sëriñ bi sedd nañ ci macha allah loo xam ne kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ñoom ñëpp ku nekk am na ci benn loolu kon ñi ngi koy seereel àdduna bépp di leen sant di leen gërëm te xam ne loolu itam nag wax dëgg yàlla ci yéen la ko yàlla tàmbalee mën naa am xëy na daana laaw yu feneen waaye ci yéen la ko yàlla tàmbalee alfadlu nag lil mutaqaddim képp koo xam ne jiitu na ci lu baax kooka ngëneelul lu baax la su moom la ko suñ borom jagleel kon yéen la suñ borom jagleel di Euh, ñi ngi ñaan mu nekk njiglaay ci yéen nekk loo xam ne itam day yokk kër gi nga xam ne moom lañ leen jox ba yaakaar yi ñu amoon ci yow ba dénk ko yàlla may leen xalaat bu baax bi yow ak ñi lay jàppale ba ngeen tàmbalee lii ci kër yi diine yi suñ borom ubbi leen ubbi leen ci bunti xéewal yoo xam ne ngeen xam ne li ngeen lebal yàlla yàlla fay na ko yàlla nag ku ko lebal moom daf lay moo lay fayal boppam te lépp lu waaye defal Sëriñ tubaab yi suñ borom nga ko lebal te ku lebal suñ borom nag suñ borom waxoon na ne la gën a néew te lam lay la muy fayee mooy day tàmbalee ci fulal la ko fukk dem ba ci juróom-ñaari téeméer dem ba ci nag nu ko neexee wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla na leen yàlla dugal nag ci wallahu yudaa'ifu liman yasha jooju nga xam ne mooy yàlla mooy xool nam toll moom mu fayee noona ñu leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci tuuru sëriñ bi di tënk suñuy kàddu foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومن قال لسما ونعم مالي